ne mooy yeewu gym xam ngeen ni lundi ak mardi bu nekk dañ ciy ànd ak waa Olympique Club euh, coach yi taxaw euh, échauffé wu seen yaram donc war fas yéene leen wan yéen nan ngeen koy defee comme nii rek bu ñu xëyee lundi bi yaram yi day day nalaw comme ni ko Pape Cheikh di waxee nege nege donc ñu ànd ci ak waa Olympique Club ñu yee ko donc coach yi nuy nañ leen fañal la sama alfi waaw coach Mar coach Mor ak coach Ngom coach Ngom donc lan la waaw euh, comme waxoon naa na ko dañuy continuer préparation physique général bi donc continuer cardio bi voilà ba ci kanam euh, bu ñu demee ba yaram bi taxaw macha allah système cardiovasculaire beeg musculaire yëpp taxaw ñu soog commencé dugg ci isolation yi yow xam nga lépp jeex na kon ñu bàyyi incha allah léegi-léegi waaw <laughs> ko waaw non c'est vers le plafond, allonger les muscles, incliner vers la gauche. Voilà, là, la... On a une muscle Donc toujours démarrer par un travail de cardio. Ensuite, ce sera musculaire. Allez, on démarre l'échauffement. Ok, droite, gauche, droite, gauche, rebondissez, droite, gauche, réflexion sur la balle du pied, levez la poitrine et serrez vos abdos. on va démarrer pour le step catch. droite, gauche. Ouvrez à droite, puis à gauche. Ouvrez, fermez, ouvrez, fermez. Allongez les bras. Continuez à allonger. Le coude loin derrière, puis chauffez le dos. On varie le mouvement des bras. Maintenant vers le plafond. Ensuite, on va intégrer les talons, l'arrière de la cuisse, tirer Ensuite, on va croiser les mains devant. plus de profondeur. En arrière, asseyez-vous. Voilà. Et repoussez avec les talons. On se prépare pour le déplacement latéraux. Dans dans C'est parti, vers la gauche. voyager à gauche puis à droite. Yeah, restez léger. Travail aérobique. Dans tout début de cycle, il faut démarrer par l'aérobique. Préparer le cœur à l'effort. Faire baisser la fréquence au repos. physique. Ensuite, est terminé par les stretch. Voici le trio gagnant. Bonne préparation physique générale. droite, il a tapé les mains et reculé. Deux, quatre. Bras actifs. Abdos serrés. Levez les du bassin et là vous activez les talons. Encore. La fréquence commence à monter. Voilà. Encore. Un peu plus de la dernière de Passy à Ngom. Ok, pour a. Et c'est parti, step encore. Et une bonne préparation le début, préparer le corps à l'effort, mais aussi les muscles à l'effort. Regardez, nous proposons aujourd'hui la pente arrière. Nous allons démarrer avec la droite parce que c'est parti. parti. On dégage la

regardez, on descend, on compte. et on monte. Encore. On se prépare. 3. Stop. Changer. Et balancez les bras. Encore deux. Top élévation genou. Voilà. On monte. Encore. Est-ce que ça va, Mas Yes. à Massamba. Comme l'a dit la dernière partie donc, qui concerne à euh, l'étirement. Donc on va tout remettre à leur place. Vous croisez les mains et grandissez. Et juste pour rejoindre, la récupération commence toujours par le bon étirement. chaque char d'entraînement. Allez les gens, talons vers les fessiers, genoux vers sol. Abdos serrés, poitrine fière, relâchez les jambes, plus particulièrement l'avant des cuisses. Changez. Le du dos, vous croisez les mains, éloignez les épaules, plaisir, travaillez-vous. Olympique Club de Dakar de la part de Mor de coach Ngom et Mohamed Soxna Alfi tey dafa mel ni loolu moo nekkoon yóbbal bi tey. waaw moo nekkoon yóbbal bi am na benn phrase bu may dégg buy ñëw souvent on prépare ah. le cœur à ah, l'effort donc loolu pour expliquer rapidement ñi ñuy seetaan. jërëjëf. Mhm. xam nga température interne du corps. nee na 37 degré la. Mhm. waaw léegi xol bi bu fekkente da ngay def sport ah. da nga ko naan ah. da bu fekkee ne da nga boo tiggi sa gaz teg sa marmite da yokk gaz ba mu bax ba mu tàng nga soog cee def ingrédients yi su boo ñëwee dugal ko ci ah. mu nekk ci te mu <laughs> moom moo yor euh, moom mooy distribuer sang bi mhm. ci muscle yi léegi donc foog nga tàngal ko pour mën a def liggéey d'accord doo ñëw rek attaqué ko boo ñëwee prédire nga def 100 mètres dama ragal doo yegg te léegi boo demee boo gisee donc à boo ñëwee au début da ngay préparer xol bi d'abord à l'effort nga chauffé moteur bi ba pare soog a dugal commencé dugal vitesse yi troisième beeg quatrième bi yooyu mais boo tëbee rek bëgg a dugal quatrième yaakaar naa ne itam sa batterie noire dëgg la dëgg la donc moo tax à bu ñëwee mhm. ñu préparé corps à l'effort d'accord donc en début de saison mhm. moo xam ci ñuy joué nawetaan mhm. moo xam ci discipline yëpp donc boo ñëwee foog nga def préparation physique defar cœur ba pare defar muscle ba pare soo commencé na leen di jaajëfal waa Olympique Club Baye Cheikh